daal gi maanaam ci xayma daal su ma la xaymaalee. Hmm. ay cent nangam lañ vingt cinq personnes ñoo ci ñëw. vingt cinq personnes rek ñoo ci ñëw. ñoo ci ñëw waaw. lan moo leen poussé d' abord ngeen di dem yéen. lan moo ñu poussé ba ñuy dem. Hmm. maanaam géej gi amatul liggéey. Hmm. te da ngay yor sa matériel jëndee ko ay un million ay quelque. doo ngay dem doo ci mën a indi dara. dañ ci daw dépasse dem ba mujj gi mënatoo cee daw dépasse. boo ñëwee da ngay am la nga am ngay ut fa leneen loo lijjanti teg ko ci pour mën a matal dépasse dem ba mbir mi métti ci ñun trop boo diggalee essence doo mën a ut essence te it lii yomb na moo gën a yomb jaar yoonu kaw ñi sacrifié wu di dem ñii di leb ñi seen yaay di jël xaalis di leen jox ñi seen baay di jël xaalis di leen jox ñi di jaay seen matériel di leen jox man mii di wax ak yow gaal gi ma naroon a dugg sama matériel laay tay la jaay ko ñaata nga ko tayle sama matériel maa ngi ko taylee six cent mille maa ngi ko jaayee maa ngi ko jaayee six cent mille machine kese waaw machine bi ñaata la doon jàpp machine maa ngi ko jëndee woon occasion yoof huit mhm. bi ma demee ba dem nekk ci man mhm. ba ma koy jaay ma jaayee ko six cent mille d'accord ñaata nga paas ci gaal gi bi ngay dem gaal gi may dem quatre vingt mille la paas waaw mais bu mhm. fekkee ci gaal gi ma njëkkoon a paas ñu triandé ma gaal googu maa ngi paasoon trois cent cinquante mille waaw am nañ la ndax dama paas ba pare affaire bi am coow ñeneen jël gaal gi dem ndax ñoom ñoo doon teggante diil seen biir mhm. affaire bi am coow man nag ñaw kama encaissé woon moom laa amoon droit waxal mais gisuma ko tegante wuñ bët ba léegi nii mais dégg naa mu ngi mbuur mhm. waaw léegi yéen gaal gi euh, bi ngeen tëmbee lan mooy problème bi lan moo indi accident yi ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan waaw gaal gi moom macha allah biñ tëmbee njabali doy na essence bi téeméeri bidon et quelque essence bi macha allah moom it ndox mi yëpp doy na waaye biñ ñu déparé fii daw nañ deux jours yoo xamante ni daw nañ ko ci jàmm ak salaam jàpp quatre jours di lekk di naan waaye si quatre jours yooyu ci lañ mujjee ak trente bidon ndox yi nekkoon ci suuf yi bokkut ak saako sose yi ci lañ mujjee gis ndox mi ci lañ mujjee gis lekk yi léegi nag ñun amatuñ luñ lekk amatuñ luñ naan. maanaam seen ndox ak seen lépp dafa jeex. Hmm? jeexul. anam dañ ko gisul. fu mu jaar. dañ koo gisul te lépp a ngi woon ci gaal gi ndax ñu ngi doon togg togg nañ 4 jours naan nañ 4 jours ñu xëy gisatuñ dara. dañ ko sànni géej wala daa am ay làkkat yoo xamante ne nii ñoom ñoo féete woon ci wàllu bopp bi. Mhm. nekk ci bopp gaal gi. Mhm. mais après ñun ñu dem ba gisatuñ loolu yëpp. léegi ñoom tamit aussi gars yi commencé di xiif ñii di mar ñii ñu leen di jël di leen may ci ndoxum géej mi ñuy naan ñenn ñi di wàcc par ndànk-ndànk koo xamante ne ni wàcc nga ci suba gi ñu bàyyi la fa ba ngoon gi ñu doog lay sànni. ndax buñ la waaw. bu dee suba gi da ngeen bàyyi ba ngoon. waaw ngeen doog koy sànni géej. ñu doog koy sànni ndax wóorut. mais lan moo leen doon rey ñoom. xiif xiif ak mar. ak mar mhm. moo doon leen rey ndax ñenn ñi dañoo dem ba comme ñi nga xam ñoo nekk si gaal gi di def yooyu da ngay gis yenn ajoor yoo xam ne dañuy jël affaire yi di leen ko sol léegi ñoom dañuy toog rek jàpp seen bopp nekk ci seen bopp di noos seen noos bu guddi jotee seen i jigéen ñëw ci gaal gi ñuy sëy ak ñoom. fan la jigéen jigéen ñi dañoo nekkoon ci biir gaal gi kon. Ah, jigéen ñi maanaam ngeen yóbbuwaale woon ay jigéen ci biir bi ngeen di dem. yóbbuwaale wuñu ay jigéen. kon fu jigéen jaar bay ñëw ci gaal loolu jaaxal ñëpp loolu moo jaaxal ñëpp def na ko sudul noonu ci gaal gi. yéen ngeen leen di teg bët. waaw am na ñu leen di gis am na ñu ñoo xam duñ leen gis man bi ñu amee ñetti fan ci laa ne capitaine bi gaal gi daa rax ndax su ma tëddee fi may teg sama nopp damay dégg ay yuuxu. ay yuuxu waaw. yuuxu nit. waaw ma wax ko mu ne ma ah ma ne ko waaw ndax ñëpp bokkuñu yem. Mm-hmm. am na ñu waaj am na ñu waajur am na ñoo xamante waajuñu waaye tamit ay boroomi bopp lañ. Mm-hmm. ndax nit ñi àndaloon am na ñoo xam ay boroomi bopp lañ. Mm-hmm. ba affaire bi demee ba dépassé ajoor yu bëri wàcc. ci la benn waaju naan àndaw ab seex la ab lébu la am na benn affaire boo xam ne maanaam comme nitu guddi saytaane yi am na yoo bu ñu ko demee duus moom la ñuy génne garab lay doon moom da da cee amee ci la moom am ay ay booyam yoo xamante ne nii gars yi sol leen affaire bi booy ba ko sàkkal pexe moom mu ñëw wax ñu ko mun nañu léegi buñ sàkkul pexe te làkkat yi fii ak wàccuñu gaal gi gaal gi du teer fii ak ñu pexe gaal gi du mas a teer ci lañ yor affaire bi dox ci ñoom gis benn làkkat tiimale ko affaire bi nangu kaa xool mu ne ko xam nga lii mu ne ko waaw mu ne ko xool ko waa ji xool mu ne ko boo ko xoolee mu ne ma bu ko xoolee moom mooy naawal boppam wàcc gi ñu ne ko ah mu ne waaw mais waa nangu koo xool ba léegi waa ji nañu may leen ma ma waxtaan ak ñoom ñu ne ko kon demal nga waxtaan ak ñoom ci nu mu gën a gaawee te ngeen wax ñu gaal gi kañ lay teer. ñoom ñaata nit lañu woon ñoom panda ëpp nañ ay sept personnes. ay waaw mais dañoo tasaaroo mel ni ñu àndul mais bu gudd jotee ñoom ñooy bokk seen lépp léegi nag après ci biir loolu ci la waa ji jéggi di tekki ay téere di dem téere di wadd ñu koy nit ci la dem ci première kal bi mu njëkk a jot am ñu fa fekk waxak ñoom daal di jéggi dem ci beneen kalu bopp ba wax ak ñooñu ñooñu yeew ko buum ci baat ba koo rey ñu nit leen torche ne leen bàyyi leen ko. yéen bu fekkee dañ leen a yabal kooku ñun ñoo ko yabal ci lañ ko bàyyi mu jéggi siwaat ñëw ñu ne ko gaal gi kañ lay teer mu ne ñu gaal gi dina teer incha allah bu soobee yàlla ginnaaw suba ñu ne ko ginnaaw suba mu ne waaw ñu ne ko na leer gaaw leen ngeen waxtaan seen biir wala sinon yéen seen bakkan dem yéen yéenay xool lu leen gënal la def ko léegi ñun ci lañ leen attaqué biñ leen attaqué première kal bi njëkk songu am na benn làkkat bu ci Touré mais bokkut ak ñoom moom nekkul ci yooyu moom moom dafa moom kim mu àndaloon dafa teel a gaañu moom ñu fekk gaa yi tiim ko teg soble di fejet yóbbu genn wàll bakkan bi ak benn nopp bi ba mu jeex. ni ko paaka ko daggee wala. dañoo fekk gaa yi di lekk. di lekk noppam ak bakkanam. man Omar loolu ku ma su ma ci teglu woon sama bët. Hmm. ku ma ko waxoon duma ko gëm. billaay wallaay ñenn ñi di jooy xàccit affaire bi dem ba dépassé li nga wax mooy ñooñu dañuy ñëw fekk nit dagg sa nopp ak sa bakkan boole kook soble di lekk di lekk teg paaka bi fejet soble biñ leen attaqué jub leen ma ne ko en ah, kon yéen defoo leen kon yéen li ngeen di def yéen ko tey si lañ leen attaqué jàmmaarloog ñoom rey leen escanté leen ñoom ñëpp sànni leen géej hmm? biñ leen sànnee géej ci la ñu soog a jël cap normal gaal gi soog a daw normal avant ñu leen di rey bu ñuy daw ndax ñun daw nañ ba team Espagne ba war a dawee dernier programme pour dem ci île bi. Hmm. gaal gi mënta dem. lu téye gaal gi ndax bu ñuy daw. Hmm. ñoom dañuy sëgg ci boor bi ñu nekk ci boor bi ñi nekk ci boor bi ñu dugal seeni loxo ci ci ndox mi. gaal gi di daw ñuy dëral ñuy contre gaal gi mais boobu ñun xamuñ ci dara. boobu mosul lan ngeen samp 40 chevaux wala 60 chevaux. ñaari 40 tax la ñu rey Yamaha. muy dawee ba pare nit samp ay loxoom di ko dëral. waaw maanaam loolu xam nga xam nga loolu maanaam loolu ñoom seen mbiru bopp la même ba ñi ñuy sol hmm. sax ñooñu noonu la ñuy def léegi nag ñun bi ñu demee buñ defee loolu machine bi après day fay. bu mu sampee seen loxo ci ndox mi machine bi day fay. waaw machine bi day fay comme tey maanaam ngay teere ba jub kaw joor gi sa mhm. diggante kaw joor gi des ay dix kilomètres. Mhm. léegi bu machine bi fayee nga taal ba sonn tàkkul nga nekk fa tas calculateur lakk ay buus yi après gaal gi day demaat ay quatre vingt nangam kilomètres. sa biir géej te machine bu bees tax la. machine bu bees tax ñoo ko daj benn machine bi da doon dem géej. ñu tas ko def ci plus de trois cent mille machine bu màgget boobu moo ñu yóbbu ba Espagne bu màgget bi moo ñu yóbbu ba Espagne ci lañ nekk nag gars yi bu ñuy daw gars yi di contre ñun xamuñ ci dara bi affaire bi demee nag ba feeñ bi ñu doxee seen kaw ba xam loolu ci lañ leen commencé garde xeex ak ñoom ñu ñi ci war a wàcce ñu wàcce leen ñu dese si ñaar ñu ne ñaar ñi duñ leen rey dañ leen di téye ba teeral leen mais ñaar ñooñu tamit targal ñu si yoon wi xam nga jant moom. ndax yow mool nga. Mhm. jant fi muy génnee boo fa mhm. tegee ku ne xam ne yaa ngi teg ci kaw joor mhm. dañ fay teg ay 4 jours yoo xamante ne nii duñ gis janeer duñ gis làmp duñ gis dara bato mënuñu koo gis gaal mënuñu koo gis mujj gi ñooñu bu gaal gi di daw ñoom it ñuy def la ñële doon def. ñoom it ñoom ñaar ñu wàcc leen escanté leen biñ leen soobee ci lañ daw ba dal ci ay bato di leen ñaan ndox boobu xiif nañ sonn nañ mar nañ ba tey mujj gi ñu ñuy roose ay ndox ba ñoo diigal ñu topp leen ak tànkeer yi tànkeer yi di ñu bëgg a war ndax boobu mar nañ trop léegi après ci leen jeeg saay ci guddi gi ñu gis janeer am benn gendar bu nekkoon ci gaal gi ne janeer yi janeeru Nouadhibou la ci lañ ci teg ba dugg biir Nouadhibou ndax boo yi wàññeeku yëpp ay booy taala booy ci wàññeeku yëpp bi gaal gi tëmbee nit mbokkam te bu gaal tëmbee da ngay toog bi gaal gi tëmbee ñu ci bëri dañoo dem toog ca bopp gaal ga te xamante wuñoo ak ñoom dafa finaan ñenn ñi nga xamante suñu borom may na leen astuut biñ commencé xelmati dañoo daw ñëw ci ñun toog ñenn ñi nag ba ñuy daw di fa jógee fekk boobu gars yi nañ leen waaw taala toll na diggante boo xam ne maa ngi moom bagaasu gaal yi na ñoo xam ne man ak moom a ko takkoon man sama yosa ngi sama digg ba léegi daal am na yoo dafa tekki jox ma ko dénk ma ko ba am trois jours du ma ko laajaat mu am na diggante boo xam mu ne fii laay toog dematuma tekki gàllaaji jox ma ba dénk ko sama benn booy booy bi téye gàllaaji ba mu trois jours mu laaj ma ko bi ma ko laajaatee mu dellu bi mu delluwaatee ba muy ñëwaat fekk kaaw na ndax ñun dem nañ ba couscous bi nga xam moom lañ toog couscous bu woo bi moom la ñuy ñëw bu ñu am ci benn ti bu yëy bu ñu yëyee ba mu nooy ñu jàllale. parce que amatu leen ndox amatu leen dara. amatuñu dara jël pot bi tànk ndoxum géej naan ba suñ biir fees. Mhm. dem nañ ba ndoxum géej mi doon daw suñ biir yi. gaal gi dem nañ ba ay six personnes ñoo koy as guddi. Mhm. billaahi wallaahi taalaahi nit day dee nga sànni ko. Mhm. nga xëyaat suba gis ko ci gaal gi. billaahi wallaahi taalaahi. nit ku ngeen sànni ko. xëyaat gis nit gis ko ci gaal gi. ni mu doonee néew noonu nga gis ko ci gaal gi nga jëlaat sànni ko. gaal gi maanaam dee nañ ba parce que ñun mool yi rek a fa des. maanaam ñi nekk doon mool ñàkk nañ seen bakkan. waaw boobu taalam yi wàcce boobu taalam yi deewagul mu xëy ak fajar ñu yee ma ne ma gaal gaa ngi diig ma yeew gis gaal gi ndox mi romb na par par la yi ma tëb daw ñëw bi ma tëbee jëwoon daw ñëw taxaw ci geenu gaal gi ma xool bopp gaal gi man ne nit ñi ko yab ci gaal gi gaal gi xanaa ko moo ko doon eh, moo ko toj ba muy senn gaal gi ngelawul ngelaw ko gaal gi tojul sax gaal gi tojul ndax ñun bi loolu amee man damaa jóg ne gaal gi nit ñi ñëpp kan moo leen yabaat ci gaal gi ñu ne ma ne ma ñi ñi nañ ñi sànni leen géej ñu dem ñi ñëpp dee nañ lan moo leen indiwaat ci gaal gi. est-ce que a tiit moo tax ngeen di gis ku naan ku dee ñu indiwaat ko ci gaal gi est-ce que du tiitaange moo leen jàppoon. non ñu sax de hmm. ñu ngi ànd ak suñu xel gis nga li nga am ci man hmm. ñeneen ñi ñëw mënoo ko am ci ñoom. ñu bëri dañ may wax sax naan ma Cheikh àndatul ak sagoom parce que li mu jiis ay affaire yu ndax li ngay wax. loo xamante ni lu ànd ak sa xel nga. sama xel carrément di ko wax. waaw ndax euh, démb ci guddi. Mhm. am na ñu ma toogal di wax ak ñoom. Mhm. am na si koo xamante ne bi ma toog wax daana ma si xam ne li muy wax ni a la xelam ma ni ko incha allahu rabbi ña nekk Nouakchott ñu mhm. entré leen bis bu ñu génnee ak jàmm ak salaam ak ñi nekk fii nang leen laaj ba xam dinañ la wax lu wuuteeg li ma la wax ndax maanaam man lu may def lu nekk rek dama ciy ànd ak sama xel ak sama sago ñun ñaata fan ngeen nekk ci bi ngeen tëmbee ak fi ngeen di teeree Nouadhibou ñaata fan la suñ seizième jour lañ teer Nouadhibou fukki fan ak juróom benn ci géej gi lañ ci léegi ngeen di teer fi Nouadhibou fekk nañu ñu bëri plus de ay quatre vingt nangam personnes ah, de nañ yëpp dee nañ sànni leen géej waaw kuñ naan Ron Mbay tam dëkk fii moom mujjee gaañu ci gaal gi moom avant muy gaañu dafa def complètement hmm? waaw xale benn bi doomu Maodo mbay bi nu mu tuddati. Waali Waali. waaw moom ak. Euh, doomu Taala Taala bi moom ak Taala kan moo njëkk a ñoom ñaar ñoo bokk benn bis biñ gaañu mais Taala moo njëkk a kaawoo mais tëddaayam moom parce que na pendant quatre jours Taala mais kii moom dafa toog ci gaaya nangootu la ñëw ci ñun moom parce que bi ko gaay laalee. Mhm. andaw mi ma lay wax mhm. ñëw na ci moom tiimale ko affaire bi mhm. waali di wax ne man waalo waalo laa man waalo andaw andaw ne ko defal ndànk waali xam naa la li ci nekk ci yow nekkul ci yow dañ koo def ci yow defal ndànk ma dind ko da dem ngeen toog ci seeni mbokk ci la ko ko dindil mhm. mais ba ko ko dindilee tamit teewul ka ni boobu moom xiif escanté na ko ak mar moom looloo ko yóbbu yenn booy sedd taala nag taala moom it moom dafa escanté wu moom moom si ñu njëkk escanté wu la bokk ndax wadd na géej ak guddi hmm. ñu tourné for ko lu ko waddal parce que gaal gi mu côté wala dafa toogoon ci boor bi maanaam da doon guddi gi hmm. aw ci boor bi wadd géej ñu tourné for ko hmm. ndax gaal gi yaa ngi jéggi say nit taxaw ci boor bi ne la maa ngi dem mën naa fay taala waaw mën naa fay ndax bi mu sooboo man maa ne ko bul fay ndax ndox mi ak ndox mi boo ko dafa diis te niiral sa bopp bi ñuy tourné di ko fa ko taf machine bi dafa fay ñu nekk ci machine bi di defar di defar bu machine bi tàkk ñu tourné teg ko torsi yi tourné taf ko jàpp ko yàpp ko ci suba ko ci la ko affaire bi daaneel mu commencé kii day jekk saay sax commencé di ree di wax wax yoo xam ne du comprendre jekk saay dañuy jekk saay essence bi di xeeñ ndeke moom moo nekk ci mbànd yi di ko tijji boobu affaire bi sonal na ko di ko tijji léegi nag moom wax dëgg yàlla man tàllal na ma loxo ba manuma ci dara ndax itam ñun dañ doon lax di as dangay wàcc si baar bi rek jubal ci kal bi. moom xiif ak mar ko rey wala luñ ko def la ci gaal gi luñ ko ci gaal waaw maanaam xiif ak mar bokk na ci. Mhm. waaye tamit maanaam luñ ko def tamit bokk na ci ndax yaram bi da doon def ay góob. waaw. li may dégg ñaan nit ñi dañ leen doon cuqateeg yu ne mel cuqati googu am hmm. Hmm. mooy loolu. am yoo yu ngand lañ ci am te nag dafa metti li ngay gis ni noonu la ma sonale moo tax lépp lu ci mën a am rek lu nekk man moom gaay wax man leen gaal gi lépp doy na mais nag ndogalu suñu borom bu ñëwee rek mm. nañ ko nangu te xam ni am na ñun daal li moo dégg nga wax mel ni ay nit yu guddi ñoo leen sonal. ñoo ñu sonal waaw. Hmm. ñoom ñoo ñu sonal léegi ana yi vingt cinq wala vingt sept ñoo des. vingt cinq personnes. vingt cinq yi des ana ñu yow ñëw nga. am na vingt cinq personnes maa ci ñëw. Hmm. Baba Ndooy. Hmm. Mbay mu Maodo si. ak Abu. ak Zal. ñun Zal rakk jigaan. doomu Mbaat Thiaw. ñoo ci jot a ñëw. Pape Cissé exeegul woon exeegul woon ñooñu dañoo kaaw dañoo sonn affaire mbooyaan ak yooyu ak Fatick kii moo leen jàpp ñu teewoon leen foofu mais ana capitaine yi nga xam na ñoom ñoo yóbbu woon gaal gi ana capitaine yi dans tout ça waaw ah, yi yóbbu woon gaal gi ndax bañ ñu téye duñu enquête ñun capitaine bi dañ koo rey ndax bëgguñu ñu sonal ko ndax it moom it dafa sonn bañ téye ko hôpital wax dëgg yàlla ndax ñun biñ jógee Mourtani hmm. ñu ñuy indi Nouakchott hmm. Roso bi ñu ñëwee ex gendarmerie Roso bi ñu laajee dañ ne capitaine bi dafa moor ñu ne ñu kenn du leen tëj xam nañ lépp nu mu demee. waaye dañ leen di enquête rek bind bàyyi leen ngeen dem. waa ji moo ñu jëndal daal ñoo ñu jox ñu reer moo ñu defar lépp ñu baax bay bëgg a dee. utal ñu ay oto taxawuñu nim ñu war a taxaw jox ñu nañu woo leen seen i parents. capitaine bi deewul kon dafa waaw dafa sonn moom moom léegi mu ngi mu ngi Nouadhibou. waaw moom si ñu gën a sonn la bokk. capitaine waaw. benn capitaine rek la gaal gi amoon. benn capitaine la amoon. bu ci des yéen ñu ko doon jàppale yéen. waaw ndax moom. moom it gars dañ koo laal ba. kab bu ñu dawee. bu ci waxee sax kab ba dootul baax coow loo lay am. mu jig ñu dàq ko genn gaal gi ne ko bàyyi ñoom ñun booyi genn gaal gi ci leen jël risque génn gaal gi. Hmm. léegi yow est-ce que tey boo gisaatoon geneen gaal di dem li nga dem. moment bi ñu toll nii. Hmm. si jamono ji ñu toll nii. Hmm. man de li ne man rek laa lay wax. sama rakk dem na. waaye yoon bi amul benn jafe-jafe Omar. ku mbokk. yeb ñi nga xam. ngelaw amul. si jàmm ngay daw ba dugg si jàmm ak salaam. waaye yoon amul benn jafe-jafe. ñii rax gaa yi rek. ñoo sonal gaa yi. Eh, bu dul ñooñu amul benn jafe-jafe. ñuy rax gars yi neexu ñoo xàmmee parce que fu ne la gars yi di uti client. waaw ndax dañuy paas dañuy paas. Mhm. waaw ku ci yàlla dimbali nag moom nga telle na ràññee. Mhm. sa yoon mën naa réussir. Mhm. waaye nag ràññee boobu moo jafe. ràññee boobu moo jafe ndax bu ñu yéegee ci gaal gi dañuy mel ni ànduñu. mais soo gisoon ku bëgg a dem fi mu nii loo koy wax. su ma gisoon ku bëgg dem fi mu toll nii. ndax xam nga jafe-jafe yi nga dund ak coono beeg ñàkk bakkan nga leen di gis di sànni géej. xam nga xam mooy li ma wax démb sam papa loolu laa lay wax yoon wi ku ko xas ba ñam doo gisaat lu dul dellu ndax sa bët may na la gis nga yow ni yomb na amul jafe-jafe jafe-jafe bi yëpp loolu kese amul jafe-jafe te léegi nit ñi di ci dee gaal yi tàkk kenn xamul mais am na jafe-jafe waaw xam nga jafe-jafe boobu hmm. mooy li ma la wax rek hmm. jafe-jafe boobu hmm. mooy li ma la wax xam nga tey am na ñoo xamante ne ni ñun suñ gaal ca gaal ga amoon coow lu métti la yaa ngi ko doon dégg am na ñu ci duggoon ñooñu du am na ñoo xam ne duggoon nañ ci suñ gaal gi ay waa Ndar duggoon nañ ci suñ gaal gi mm-hmm. moo tax ma ne la ku bëgg a dem mm-hmm. mënoo ko woññi ndax yoonu tukki boo ko xasee ba jël mm-hmm. kenn mënut kenn mënu la see jële ndax ñun bañ fa tooge am na benn gaalum ñaliñ gu ñu fa fekk am na benn mbër mu ci nekk mbër moomu nee na man samay nag jaay naa samay nag samay mbokk wax nañ ma li pour lijjantil ma ay billet ma jaar ci kaw ma ne leen mukk mu ne man sama làmb yàqu na ndax fi mu toll nii mënatuma liggéey dara sama bopp bi tukki rek ci ne tey du ma teggi sama tànk. tukki rek tukki rek laa gis waaye du wax dëgg yàlla. ay ndaw lañ. buñ sañoon dem géej. yow nag la fi suñ borom teg. nga nekk ci rajo bi. di ñu ko kaasal. nga kaasal ñu ko suñ géej gi mën a liibur ñu mën a liggéey. xeer yañ daan jaar di jàpp jën mënatuñ ko. soo fa demee tey jaar nga ci mool xam nga li ci mool. Mhm. fere bi ñuy jànkonteel xam nga ko. Mhm. kon loolu yow yaa ñu si mën a jàppale. ndax gis nga bu liggéey amoon. Mhm. waat naa ko ci yàlla. ñenn ñi duñ faale mbëkk mi. mais liggéey gu ñàkk am moo tax nga jël sa matériel di ko tayle. di ko jaay ñii di tayle ay lal. ñii di tayle leneen ak leneen ak leneen. kon nga xam ne bu liggéey amoon. ñenn ñi duñ ko faale. 2006. bi mbëkk mi di am fii fi la la fekk. am na ñoo xamante ne ni da kaay dem daw ma. boobu liggéey am na. Mhm. waaw bii nag liggéey amut. ay magum jëmm ngay gis ñu boot seen i doom boot lépp dem yóbbu. te 2006 géej gi bu ngeen demee du ngeen jàpp dara. waaw jàpp dara. Mhm. te 2006 da ngay gis bari ci géej gi ba tey ba tey du jeex ñun bato marocain am na bato marocain boo xamante ne nii mhm. moo ñu gën a tegtal yoonu Nouadhibou moo ñu gën a tegtal yoonu Nouadhibou xam nga di instant yi tëj nañ ñoom seen bato yëpp a ngi ci kaw mais ñoom biñ ne leen bato marocain dañ nañu déedéet ñu ne leen bato yaa ngi fii di mbaal mais teewul ka nit bañ ñëwee ñoom it taxawu nañ ñu nit ñu war a taxawee macha allah waaw jama jamay taxawu nañ ñu nit ñu war a taxawoo macha allah teral nañ ñu defal nañ lépp lu ñu war a defal jël nañu en charge ñëpp yóbbu leen waaw ba suñ borom daal def lépp loo xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy li ci gën daal waaw ñu ngi lay sant di